gërëm di leen sant ñu ngi ziar borom daru di nuyu porte parole bi ko toogal fii tey di nuyu aussi suñu papa suñu xarit Cheikh euh, Assou Faye di gërëm chef de service ci seen présence massive mais aussi ci engagement yi ngeen jël pour ñu réussir 74e édition Magal daru Mouhty bi nga xam ci début bi porte parole bi wax na lu ko wund mooy daje bi borom daaru daje borom Touba bi mu jógee euh, Gabon fële si Ndar ñu koy célébrer juróom-ñaar fukki at ak ñeent muy ñu koy célébrer euh, ren ñu bëgg mu nekk organisation bu mucc ayib moo tax le 22 mars bii passé préfet département Kébémer organisé na CDD conclusion yoy ñu fa teunkon mom la sous-préfet lire tay chef de service ñëwaat daal di euh moy réitéré lu ñu waxoon keroog ni bëgg nañ jëlee engagement pour réussir édition bi yi ci gëna am solo nak moy li ñu wax Ageroute war na ko def ci dëkk bi duma lim yëpp waaye li ci gëna am solo moy ñaari boulevard yi nga xam ni dañ ko wara def daru Muxti té Ageroute wax ni projet bobu jël nañ ko jox ko Promoville bi nga xamné ne engagé wu na pour def ko daru moti xana yok ci rek ni euh yoon bi nga xamné moy mooy Ndoyeen Warak aussi si année 2018 bi aussi euh Ageroute engagé wu na pour pour defar ko li ci si des suñu duggee si volet assainissement wala Sénélec d'abord Sénélec dafa naa ni euh, dafa am ay secteur yo xam ay ay secteur clé lañ pour organiser événement yu melni euh té Sénélec ci la bokk

mais ban si jógee ba tey defe ni euh, hydraulique ñi ngi efforts effort pour que problème ndox bu mu ñàkk am fii si fii si Daaru Muxti ñu ñaan yàlla rek mu continuer ba problème ndox yi fi daan am yëpp yëpp ñu fàtte ko réalisation F4 bi nga am 500 mètres euh, cubes de de de capacité. si côté santé euh, comité d'organisation bi souhaité woon nañu renforcer personnel bi indi ay spécialistes. Le domaine lu ni ay pédiatre cardiologue ak gynécologue pour renforcer l'équipe médicale bu fi nekk loolu dégg le ko te ko ministre de la santé euh, si nous avons mais aussi nous prépositionné 9 ambulances comme le chef de service régional euh, bu brigade hygiène Wahé, bi fi représenté médecin chef nous aussi ñoom engagé pour le DEFCO. côté hygiène le service d'hygiène aussi a solo trop si événement yu mel je ne cesserai de le dire nous ak mairie ICG, ak euh, même le service du commerce dinañ def lépp lu war si contrôle ak aussi des désinsectisation site yi nga xam ni nit ñi dañ fay pour que Ben Galancor bañ leen a fekk si liñ fi pendant màggal bi bi des mooy Croix-Rouge aussi Euh, soxla nañ vingt cinq éléments yu fi war a teew comme ni ma ko waxee léegi si tubaab euh, élément yooyu dinañ fexe ñu jóge Louga ak Kébémer pour ñëw jàppale euh, région médical si activités yi ñu fiy def di beral aussi remerciement waa élevage yi nga xam ne li leen sant fii mooy ñuy contrôler abattage bi mais aussi xaj yi nga xam ni bëgguñu sax ñu koy waxee noonu dañuy dañuy taxawalu ñu xool nu la leen faagagalee loolu yëpp nak di ñaan maire bi mu jappalé len ci mais aussi ñun dinañu saisir ministre de l'élevage pour matériel yi nga xamni moy yello pour lolu ñu mën ko ñu mën ko def xana di wax tamit ni gendarmerie côté sécurité ak sapeurs pompiers ñom aussi jël nañ engagement déployer ay force yu doy sëkk si dëkk bi pour ñu assurer sécurité pèlerins ci événement bi mieux encore gendarmerie dina def ben lu ñu wax plan de circulation

décision si engagement Yifissé, fi CMU ak poste ak Sonatel pour améliorer surtout côté Sonatel euh, disposition yi ñu war pour que 4G bi ñu mën ko installer pour que sunu mbokk presse bi mën a def seen liggéey comme ni mu euh, ak tamit euh, sécurité alimentaire comme ni ñu ko amee habitude di def ñoom aussi dinañ ko def pour dund gi nga xam ni war si si kii bi mu doon participation état ndax mënuñu def lépp waaye li ñu si war a def te dañ ko daan def dañ ko reconduire si si anam yu yu doy sëg euh, sur ce maa ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla euh, màggal bi dàq si màggal yi fi jaar yëpp euh, di ñaan chef de service yi rek engagement yi ñu fi jël ñu teel si jug ndax temps bi gàtt na par rapport ak temps bi ñu daan def CRD bi daan nañu am un mois mais cette fois ci daanaka trois semaines lañu am ëpp ko lool ñu ñu ku rek xar sa tànk tubéy ñu xam ni comme ni ko gouverneur amee habitude di wax ni liggéey bi tey lay commencé xam naa ne sax commencé na bu yàgg mais waxin la pour pour ñu réussir édition 2018 euh, bi muy 74e édition loolu la amoon li may wax asalaamaaleykum je vous remercie de votre attention